tey jii coalition Yewwi Askan Wi dafa am mbégte recevoir mouvement Y'en ak mouvement FRAPP bi nga xam ne nii dañu ñëw seet suñu tey pour yëgal ñu seen taxawaay bi ñu bëgg am ci marché bi ñu bëgg a organiser le 10 décembre bii di ñëw bu neexee yàlla ci wàllu xeex jëng bi nga xam ne nii moom la justice Sénégal jëng di ko xeex nag ndaxte ci pàcc boo mën a laal xam ngeen ne justice Sénégal amul dafa am justice ku ma am ndey am justice ku amul baay justice bi nga xam ne nii boo bokkee ci nguur gi. du la dal ci sa kaw waaye boo ci bokkul loo def ñu dal ci sa kaw loolu lañu gis ba ci kaaw kilifa bi nga xam ne nii moo ci mujj ñu génne ñi nga xam ne nii ñoom la seqaloon mbir mi ba pare bàyyi ko ci kaso bi kon nag problème kilifa dafa nekk prétexte rek parmi dootu yi nga xam ne nii moo gàllankoor justice Sénégal foo ci laal rek am ngeen exemple yu bëree bëree bëri loolu moo tax ñu dajaloo boole suñu doole ànd ak bépp sénégalais nag bu nga xam ne nii jàmmi réew mi moo tax ngay jóg bépp sénégalais boo xam ne nii koomu réew mi moo tax ngay jóg bépp sénégalais boo xam ne nii luy defar ak luy aar Sénégal moo la tax a jóg ñu ànd ñi ñëpp xeex jàkkaarloog gouvernement président Macky Sall xeex li nga xam ne nii kenn war koon xeex parce que état de droit parce que démocratie bu amee ci réew mi rek. day fekk ne justice bu baax moo ko boot te bu ñuy xool ne démocratie ak état de droit bu doon dañu am yaay ba nañu wax ne justice mooy yaayam kon nag yaay jooju dañ ko war a tatagal dañ ko war a sargal dañ ko war a ormal te kenn ormal lu justice Sénégal loolu moo tax ñu ne dañu ànd ak patriotes yëpp xeex taxaw jaakaarloog régime bi nga xam ne moo fi nekk ba lépp loo xam ne nii dafa xawoon ci justice bi ñu delloo ko place am parce que loolu mooy jëmee Sénégal kanam loolu mooy aar Sénégal loolu aussi mooy tax Sénégal am xar kanam bi nga xam ne ni ñun ñëpp bu ñuy xeex ci politique loolu moo tax ñu koy xeex pour que jàmm sax ci réew mi démocratie sax ci réew mi expression des libertés sax ci réew mi pour que Sénégal jëm kanam ñu ngi leen di gërëm di leen sant.